mais tey su su su loolu lépp jàllee tey su ma nee Ibou Senghor ñan ñooy adversaire am nga limal ma ñett war ba ñeent rek ñan nga may limal. waaw mooy comme li ma la wax léegi rek xam nga làmb ji léegi moom dafa miti xam nga booy wax rek di tudd nit man damaa laajalaaj gars yi laajalaaj ba sonn man daal promoteur bu seet ak ku mu mënti den nag. bu ma soxla sax yaa may upp doole upp ma gabari upp ma lépp ci àdduna ak ku mu doon ndax propose na la fii ki nga xamante mooy Boy Faye te ay naataangoo leen mais li nga ci wax peut-être xel nangu na ko mais moo tax ma su ne ma diw ak diw ak diw adversaire lañ ñi seetaan wala ñi nga xamante ni ñoo ngi kal ci Wassare Lamb ñoom tamit mën nañoo wax ne diw ak diw adversaire lañ wala lii jaadu na Bébé Saloum moom ay nataangoo la ñu war nañoo mën a bëre dégg naa Bébé Saloum jógee ci franc franc daan ko mu am lu ko metti te te te ko nga bëgg a dugg ci moom ak ni nga gëjee bëre. non Bébé Saloum ngay laaj ndax ñeme naa jël avance Ibou Senghor loolu ngay ngay wax est moom ndax ñeme naa jël avance Ibou Senghor. Bébé dafay xeex de. non dafay xeex dafay bëre moom daanaan la mais yàlla xam na ne xam naa boo ko foogoon nekk avance Ibou Senghor a ngi nii moom di ko jël gaa yi wax ji ñëw pare fii rek. non moo tax du ko jël Ibou Senghor xam ne du ko jël rek man lépp laa mu ne xoolal combat yi ma bëre gisoo ci kenn ku ma mës a dume billahi gisoo ci kenn Malem Niang dina naan day dóor mu daanu ay affaire nangam nangam ndoof gis nga nangam nangam xam nga man mosoo ci gis kenn ku ma ci duma benn groupe ndax yow est-ce que ma ko ñamal parce que Sëriñ Tuubaa ko jël Pépé Saloum ay naataangu lañu ay ñoom Elton gaa yooyu yëpp. de tee ma yow tudd Elton. Elton ba gis nga Elton ni mu toll. ngandim nit la ponka la champion la mën na bëre. barke Seexul Xaadim mais ñoom ñëpp ku ma ci joxoon seen avance barke Sëriñ dibiteer laay reere billaahi amutul ñoom lan la au palais bi la amul luñ. Ibou Ndiaye ma la andalee Ibou Ndiaye nag. Ibou Ndiaye sama gaayan la moom it wax de kooku mu ñu ñu bëre. Ibou mu ñu ñu bëre te Ibou defe naa sax xaw ma ñaata combat la ma deux combat xaw ma ñaata combat Ibou mu ñu ñu <laughs> bëre sama gaayan la maa sax au palais. Sama bàyyi ma wax léegi booy fay nga booy fay six combat la am. ma ma deux combat trois. waaw boo xeeb xoolal rek onze combat Ibou sama gaayan sama booy la sama lépp la barke suñu jubaa dañu xam nga sama ku ma jox ceer la nag mooy dem def maa jox ceer ni ma joxe ceer noonu laa ko joxee ceer mais nag dafa am loo xamante ne tam yéen wul maanaam yow itam nag Ibou xam nga deux la am xam nga trois combats nga am onze combats. Baara Ndiaye bu Faas ma. bu Faas kooku bu ñuy dox sama combat ak moom yàgg na lool lool lool lool mu bañ langa yàgg na bu may gën a dégg dynamique yu baax wax nañ ma provoqué a ma sama combat moom ba sono mu bañ. parce que man doon na fi dégg mu ne Cobra combat ak Cobra ñoo ko doon dox. mais combat bi dafa mel ni taxawul. yaa moom combat la. buñ ma ko joxee sax ma jël man état bi daal nee naa la daal koo képp koo xamante ne daal lamb jaadu na man man bu ma ko perfecté man nee naa la jaadu na Baara Ndiaye bu ma ko joxee ma jël mais xam naa du jël sama avance parce que ko def. billaay du danaa sama avance. champion la nga naan la mais leer na ma ne ko def xam naa ne def parce que yàgg nañ jox sama combat ak moom te sotti wul ci tuuti moom la kale man moom bañu ma kenn waaw bañu ma moom waaw.